mbokk yi dal leen ak jàmm ci rajo réew mi fm 97 point 5 ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi tey seen émission gox bi di dalal maire Tivaouane Peulh ñàgg di Momar soxna Diop ñu gën ko xam si Papis Diop ñu war a waxtaanee tolluwaayu gox boobee ana la nag ba fa toogee ci boppu maire bi ba léegi lan la liggéey ak lan la askan wi di jànkoonteel naka noonu àddu ci wàllu politique ak mbas mii di lëmbee àdduna rawatina si Sénégal naka noonu sax ca gox boobee di Tivaouane Peulh seen stratégie de lutte la fent ngir euh, kar boobile jàngoro laata loolu sax ki fare ci kàddu gi Mass Thiam ci technique bi Adama Diallo monsieur le maire maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay fay di la sant ci. invitation bi ngeen xamante ne si moom ngeen ma may tey. Mhm. ñu bàyyi la nga nuyoo ak auditeurs yi. waaw kon salaamaaleykum maa ngi nuyu. auditeurs yi ñoom ñëpp kenn mhm. ku ci nekk ci turam ak santam mhm. di leen di bàllu àq ci mhm. tabaski bi ñu génn di leen di ñaanal wér-gi-yaram di leen di santaat bu baax ci liggéey bi nga xamante ne si eh, ñi ngi ma ci jàppale surtout ci commune Tivaouane Peulh bàyyiwuma kenn muy kilifa yi fa nekk kilifa diine Euh, di délégué de quartier waaye rawatina dolli ci responsable politique yi nga xamante ne si ñoom ñoo ñu jàppale ci liggéey bi. Mhm. dañ koy dooree ak boobile commune bi nga ko junj say kàddu muy Tivaouane commune Tivaouane Peulh Niague ban at nga tokk ci bopp boobile maire. waaw jërëjëf euh, euh, Tivaouane Peulh Niague dañ ci indi ñaari leeral. leeral bu njëkk bi mooy yàlla def na man maa njëkk nekk maire. Mhm. ci commune Tivaouane peulh mhm. su mu ne man ma njëkk nekk maire euh, commune Tivaouane peulh bi mu amee découpage ñu jóge ci Sangalkam. Mhm. Sangalkam yóbbaale woon commune Bambilor commune Jaxaay Parcelles. ak commune Tivaouane Peulh-Niaga. bi ñu jëmee ci élection yi ci 2014. muy juillet 2014. ci la yàlla def ma installé wu. ak sama bureau municipal. Mhm. ak conseil municipal bi comme euh, premier maire ci commune Tivaouane Peulh Niaga. kon depuis 2014 ba léegi yaa ngi ci boppu maire bi di Tivaouane Peulh ba Niaga 2014 2021 daanaka juróom-benn at boobu ba léegi lan nga mën a teg suñu loxo bi nga xam ne looloo liggéey nga ko fa ba nga fa toogee ba léegi. waaw jërëjëf jërëjëf ci euh, kàddu yi nga laajte. ma bëgg tàmbali ci euh, euh, leeral loo xamante ne si ñu bari xamuñu ko ci Sénégal mooy tolluwaayu commune Tivaouane Peulh-Niaga mm-hmm. commune Tivaouane commune la boo xam ne ci recensement bi ñu koy jël 2014 commune la woon boo xam ne am na quarante trois mille habitants muy donc euh, juróom fukki junni yu manqué yu manqué donc juróom juróom euh, ñaar mhm. loolu ma fa mayoon tolluwaayam ci ci ci doomu aadama yi fa euh, euh, nekk waaye tey mii may wax ak yow mhm. commune Tivaouane Peulh Niaga passé na cent vingt mille habitants mhm. cent vingt mille habitants muy donc téeméeri junni ak ñaar fukk loolu boo ko xoolee mooy nekk mooy commune bi gën a gaaw a màgg ci Sénégal ci juróomi téeméeri communes yi ak juróom fukk ak juróom-ñaar muy 557 communes. Mhm. commune Tivaouane Peulh moo ci commune bi nga xam ne moo ci am màggaay bi gën a gaaw. Mhm. kon xam nga suñu waxee màggaay bi gën a gaaw loolu wan na ne que ci ndakaaru ñu ci bare ñoo xamante ne si dëkkukaay la ñuy wut. Mhm. ci commune Tivaouane Peulh ñàgg la ñuy ñëw. kon euh, loolu boo ko déggee day wane ne que d' abord ne commune la boo xam ne ñu bare bëgg nañ ko. ñu mhm. bare bëgg nañ fa ñëw ñu bare bëgg nañ ko dëkk te loolu lu ko indi. Mhm. mooy euh, nekkinu askan bi foofu ak euh, euh, foofu daal bërëb bi daal. Mhm. ni mu baaxee. boo ma laajee question bi ngeen fi ñëwee boobu ba léegi lan ngeen fi def day nekk question bu ma neex lool. day nekk question bu ma neex lool parce que danga may jox opportunité. danga may jox euh, possibilité. Mhm. ma mën a gën a waxtaan ak sama askan. xamal leen li nga xam ne réaliser nañ ko ci diggante bi. ak mhm. li nga xamante ne si euh, jotuñu ko réaliser. Mhm. Euh, dama jàpp ne que commune la boo xam ne boo demee ci mbirum école yi commune la boo xamante ne si wax dëgg nag yàlla ni muy màggee. day tax infrastructure yi ñuy soxla ci école yi. at bu nekk day yokk. at bu nekk day yokk. boo commune bi ñaata école la. waaw ci wàllu primaire sem ba ci lycée waaw jot nañ sax ñenn ci askan wi di ñaxtu ci wàllu lycée bi nga xam ne waroon nañ ko moderniser ci atum 2016 ba léegi mais daanaka France daal di xëddeen waaw xam nga xam nga xam nga euh, ñaxtu moom du ñàkk mhm. ndax euh, lycée euh, daf ci am leeral boo xam ne dañ ko ci indi ndax bu fekkente ne wax naa la fii léegi léegi nekk Euh, euh, commune bi dafa am màggaay bu mag loolu mm-hmm. wane na ne commune Tivaouane Peulh-Niaga war na am plusieurs lycées mm-hmm. te commune Tivaouane Peulh-Niaga benn lycée moo fa nekk mu nekk ci Tivaouane Peulh mm-hmm. te bu mu ne benn lycée moo fa nekk day lycée boo xamante ni sax tur la rek waaye nu mu waroon mel melu ko moo tax askan wi doon sàkku ñu gën ko moderniser maanaam gën ko yeesal waaw loolu nag dem ci sant bu baax ndax xam nga boo waxee lycée du ci compétence su commune compétence su conseil départemental la moo koy yore. Mhm. mais di ci gërëm tamit taxawaayu département bi. mais ak décentralisation bi gis nañu liggéey daanaka sax lépp ci wàllu dañuy wëllëng maire yi ak ministre yi dañuy ànd def benn liggéey loolee moo tax askan wi mën nañu yëkkati seen i jafe-jafe teg ko sa loxo pour nga mën ko yëkkati ci kaw. waaw lu jaadu la xam nga jafe-jafe bi que mu nekk ci compétence wala nekku ci lu sama askan soxla rek dama ci war a taxaw. Mhm. moo tax may ñëw ci lycée bi. Mhm. lycée taxaw ci état jël décision en 2017 ci mm-hmm. conseil mm-hmm. des ministres décentralisé nekk daf ñi may lycée moderne de Tivaouane Peulh mm-hmm. yàlla def nag ci jamono yi passé euh, euh, état bi nee nañu euh, li nga xamante ne si moo war a réaliser lycée bi pare na nañ leen jox bërëb bi nga xamante ne si foofu lañ ko bëgg a tabaxee bërëb boobu nag indi woon na ay werante waaye yàlla def na ci ndox bu sedd lan moo juróon yooyu la werante waaw li li li li jur yooyu werante c'est que xam nga boo ñëwee nga bëgg a def lycée ci lu toll ak ñaari hectare mhm. xam nga ñaari hectare ci dëkk boo xamante ne si mi ngi commencé xat yombul noonu mhm. euh, waxtaan nañ ko ba solution am na ba délibéré nañ terrain bi nga xamante ne si moo war a jël lycée bi mhm. jox nañ délibération bi nguur gi deuxièmement bind nañ préfet demandé ko commission d'impense parce que foofu dafa am tool boo xam ne fi ñu ko délibéré mhm. amoon na ko fa nekkoon mhm. waaye koo xam ne yëngatutul ci mbéy mhm. moo tax ñu ñu ñu désaffecté ko jël terrain boobu def ko ci projet wu lycée bi léegi nag euh, commission d'impense ci lañ nekk te am na yaakaar ne ko nu mu a gaaw rek état bi dana ñëw kon askan yu mën nañoo xaar fii ak fan lycée boobu mën a yemb waa xam nga du man may tabax mhm. su fekkee ne man may tabax ak sama budget mhm. ma mën la wax ci diir bi dana mhm. ñëw li ma jàpp mooy préfet dafa jàpp nekk après tabaski commission d'instance bi dafay ñëw ñu évaluer ko ñu jox ndàmpaay borom tool bi pour que moom pour que moom mu mën a libérer terrain bi bu xasee ba libérer terrain bi rek incha am na yaakaar nekk état comme que wax nañu nekk ci budget bu mu programmé la ba pare am na yaakaar nekk du yàgg euh, normalement euh, lycée bi ñu ko démarrer travaux ci wàllu école primaire yeeg euh, ci taux d'escolarisation bi foofu askanu Tivaouane Peulh nan la toll est-ce que xale yi ñu ngi dugg ci wàllu école bi di jàng wala. waaw xale yaa ngi dugg macha allah ci école yi di jàng. Euh, baax na nag ñu noté wax nekk ba léegi abri provisoire yi am na ci commune Tivaouane Peulh-Niaga mhm. euh, su ma ko jàppee toll na à peu ci vingt vingt cinq ñaar fukk ba ñaar fukk ak juróom mhm. euh, euh, bu classe yoo xamante ne si ni ñuy jàngee conditions yi ñu nekkee mhm. jaaduwul ñun mairie bi ñu ngi ciy tabax ay salle de classe démb rek ñu ngi woon ci prix d'excellence bu CM bu APIX foo xam ne tamit dafa commencé xat mhm. dafa xat sax mhm. euh, dañu fay dolli ñaari salle de classe euh, euh, bu Tivaouane Peulh école élémentaire 1 bu Tivaouane Peulh ñu ngi fay dolli quatre salles de classe mhm. yàlla def na boo demee tey ci tawféex Tivaouane Peulh état bi may nañu fa école bi nga xamante ne si mooy école bi dàq ci Sénégal waaye tey léegi xat na am na beneen école buñ ñu may buñ ñu tabaxal boo demee Tawfekh ñàgg tamit am na beneen école parce que yooyu yëpp état bi def ñu ci jàppale. Mhm. parce que nii ñuy recevoir mbooloo bi moo am doole. Mhm. ndax boo ko seetluwee tey boo jëlee Tawfekh Tivaouane pël ak Tawfekh ñàgg muy ñi nekkoon ci mbënd bi ñoo ñëpp tey dañu toxu si ñëw Tivaouane Peulh ñëw ak seen njaboot. Mhm. mbooloo boobu yëpp bu fekkante ne. infrastructure yooyu état bi jàppale wuñu ci day toll noo xamante ne si doot duñ ci mën a euh, mhm. dem ñun rek mhm. euh, bu loolu jàllee tamit euh, am nañ chance côté bënn bu aussi ak ay partenaires muy muy muy mhm. dinañ si ñëw si wàllu inondation bi ñoo xam ne wàllu réalisation bi comme ni nga ko junjee woon ah, au delà de wàllu aspect njàng mi ak leneen nga mën a teg suñu loxo ci nga xam ne ba nga toogee ci bopp mairie ba léegi muy loo xam ne liggéey bu concret la te waa Tivaouane bal gis nañ ci seen bopp waaw loolu mën nañ la jëlal tey par exemple marché bi nga xamante si mooy marché bu ñàgg. Mhm. marché bu ñàgg dañ ko réaliser totalement. réceptionné nañ ko depuis deux ans marché bi disponible na. mooy marché bu ñàgg pël tam amoon. ay abri ah, ñàgg. mais au delà am na beneen marché bi nga xam ni moo ngi si ñàgg pël te ay maire ay soxna ñoo ngi fa di yëngu waaye abri provisoire lañ fa nekkee foofu fan ngeen toll si lool. dëgg la nañ dem d' abord ci réalisation yi nga mhm. wax nii. Euh, yoo xam ne mën nañu teg suñu loxo. Mhm. wax naa la léegi euh, ñàgg wolof. Mhm. muy marché boo xam ne euh, mairie bi moo ko tabax en fonds propres. Mhm. boo demee tey ci terrain de sport bi nekk ñàgg wolof ba léegi muy. village boo xam ne am na trente mille habitants. Mm -hmm. terrain de sport boobu aussi commune bi moo ko réalisé. moom moo defar mur de clôture bi moom moo defar grille de protection bi. boo ñëwee tey fu mel ni Tivaouane Peulh muy marché bu Tivaouane Peulh muy village bi nga xam ne mooy village bi gën a rëy bi. Mhm. foofu tamit di nga gis ne Euh, marché bi euh, léegi mu àgg euh, am nañu ay yenn jafe-jafe de prise de possession mais incha allah ci diir bu gàtt. Mhm. tabax bi dana àgg intégralement. Mhm. boo demee tamit fenn fu mel nii ci école Tivaouane Peulh mhm. ñu ngi tabax ay salle de classe additionnelles yoo xam ne incha allah ci rentrée bii di ñëw. salle de classe yooyu danañ mën a disponible. boo demee tey booy ñëw Tivaouane Peulh di dem Namora jëm Sokabek. gis ngeen ne ko yoon boobu yoon la woon boo xamante ne si yoon bu jafe la parce que euh, euh, mbooloo bi ak oto yi fay jàll dafa euh, day gën di bare. Mm-hmm. yoon bi yàqu commune bi tamit intégralement ci fonds propres jël na ko. Mm-hmm. defar ko dem ba ci Namora te incha allah mi ngi continuer noonu continuer dem ba ci. Mm-hmm. côté Sokabek. boo jëlee euh, ci euh, euh, yeneen lim yoo xamante ne si aussi commune bi liggéey na ko parce que commune yemul rek ci loo xamante ne si daf ko defal moom boppam. Mhm. mais am na yoo xam ne da koy def mhm. ko ci jàppale. Mhm. boo demee tey centre de santé bu ñàgg wolof ak centre de santé bu Tivaouane Peulh ñaar yëpp ñoom ñaar ñëpp bu ci nekk tabaxal nañ la en partenariat avec les Coréens maternité yoo xam ne ak équipement bi ci war yépp di ànd ak moom. boo demee tey ci côté Tivaouane am nañ. benn euh, centre de formation boo xamante ne si ak ay partenariat aussi lañ ko tabax boo ñëwee aussi côté Lac Rose hmm. nga dem ci ci ci ci lac bi ñu ngi fay tabax centre artisanal boo xam ne état bi moo ñu ko financé hmm. boo xam ne macha allah bu mucc ayib la dem beeg ñëw bi métti woon na ay jamono boo jógee ñàgg di dem fu mel ni bënnoo ba dem kër Mbare Mbeng foofu yëpp Euh, aussi euh, ay voies de mhm. contournement réalisé nañu ko euh, au delà réalisation yi ngi fi lim yëpp 2014 mhm. ba jëm 2021 mhm. naam ni sax tudd nga ay réalisation teewul daanaka doo toog ñaari ay bés yoo xam ne déggoo population Tivaouane Peulh di génn di ñaxtu à travers les radios et les télévisions di wax ni dañoo am jafe-jafe wàllu ndox wàllu électricité surtout wàllu kaaraange est-ce que kàddu yi nga yëkkati ak li am réalité sur le terrain xawuta safaanoo waaw xam nga danga wax léegi léegi euh, wàllu sécurité wàllu ndox wàllu courant. Mhm. te loolu dama ci kontaan indi ci ay tontu ndax dafa baax tamit boo nekkee ci gox te ñëpp du ñu am même niveau de compréhension nga ci mën a waxtaan ak ñoom. Mhm. benn bu ci nekk dama bëgg ñu jël ko. Mhm. ñu wax ci kàddu yu leer. pour que auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu. ñu mën ci am gis-gis bu leer. xam nga tey euh, foog naa ne yow professionnel nga ci mbirum journalisme. Mm-hmm. ñu tàmbali ci mbirum ndox bi. Mm-hmm. mbirum ndox bi comme ni ma ko waxee day lu ma mettitlu mm-hmm. lu ma mettitlu parce que sama askan. particulièrement ñi nekk Tivaouane Peulh ba ci nekk ñàgg sax jëm bënnoo ba kër Marème Mbengue Deni Guèye Nior wax dëgg neex yàlla su ma ne maruñu waxuma dëgg mar nañ sonn nañ mar nañ sonn nañ ci loo xamante ni SONES ak SEN'EAU mhm. war nañ fexe bu fu doomu aadama nekk ci Sénégal rawatina ci Ndakaaru mhm. ñu mun fa indi ndox mhm. ndax tey boo ne mairie bu tax indiwuloo ndox du mairie mooy indi ndox mais yan jéego nga ci def voilà mairie mairie da ciy jàpp bu ci jàppee nag état def ci li mu war a def concessionnaire def li ñu war a def mairie bi tamit xool ñi nga xam ne seen loxo mënu ko mënu mënu leen ko permettre mairie bi ñëw jàpp ci ci point boobu laa bëgg ñu taxaw point boobu dama ci indi ay leeral mhm. tey fu mu nekk ni wax naa la commune Tivaouane Peulh ñàgg màggaay bi nga xam ne mi ngi koy màggee mhm. mooy màggaay bi gën a rëy ci Sénégal euh, euh, ñun tey ñun tey li ñu def mhm. ñun tey li ñu def mooy lan mooy def nañ euh, jël jël jël xaalis jébbal ko li nga xamante ne si moom mooy appui pour que ñi amul ndox war a mën am ndox lépp nag mënu xëy sotti d'abord ci courant bi lañ tàmbali woon taxaw ci ak Senelec foofu damay beral loxo Senelec damay bexel mais laata ñu dem ci courant bi ci ndox bi. maanaam yan jéego nga def ba population bi. donc donc donc ma ñëw ci donc euh, euh, ci ci ndox bi fu mu nekk ni euh, ñi ngi financé am nañ déjà trois kilomètres yoo xam ne jamono yi passé rek dugg na encore ci biir zone nu Tivaouane Peulh mhm. am nañ ay appui yoo xam ne defal nañ ko ay nit pour que ñoom ñu mën a am ay branchements sociaux. Mhm. pour fi ñu nekk. Mhm. mais rax ci dolli am nañ massivement. loo xam ne ci weer bi di ñëw mi ngi appuyer pour que ñu mën a dugal ndox bi en grande quantité ci yenn endroit yu bëri Tivaouane Peulh y montant de cent millions de francs cinquante millions yoo xam ne disponible ba pare ñu ngi ci normalement d'ici une quinzaine de jours opérationnalité bi dafay commencer ci biir Tivaouane Peulh mais boo jëlee aussi dans le passé am nañ ay euh, euh, branchement yoo xam ne mairie bi indi na ci appui muy Kër Marème Mbengue muy muy muy euh, bënn ba yoo xamante ne si borne fontaine yooyu nga xam ne dañ ko appuyer pour ko population bi di ci mën a. Euh, euh, mhm. am ndox yooyu tamit mairie bi contribuer na ci. population Tivaouane Peulh jafe-jafe ndox yi muy jànkoonteel. Mhm. est-ce que bokkul ci wàllu enclavement bi maanaam lu mu ruqe. waaw loolu dafa am solo parce que bi may soog a toog bi mu ko ñaxtuwee état daf ma ne problème bi c'est plus profond. Mhm. c'est que am amane bi mooy tuyau bi nga xamante ne si moo war a may zone bi ndox. moo mhm. tuuti. Mhm. kon dëgg la mbooloo bi bari na ci ginnaaw mais tuyau bi war a indi ndox bi moo tuuti. Mhm. kon seen problème mënuguñ ko regle léegi. parce que tuyau bi indi ndox bi Tivaouane Peulh ak ci yenn dëkk yi foofu tuyau yooyu ñoom ñoo tuuti ndax dëkk bi tollool woon nii. ñu daay def benn programme spécial boo xam ne dañu indi ci tuyau gros diamètre cent bu jóge woon Kër Massar mu ñëw bi bi ñëwee. ma dem renforcer sama demande au niveau de l'État ñu mhm. xamal ma ne que le problème reste toujours entier parce que tuyau boobu mhm. rëy na rëy enfin toll na tollaay boo xam ne mënul fees ndox mhm. ndax euh, li tax président Macky Sall def KMS 3 ak yooyu yëpp loolu moo tax ndox bi moom moo doylu woon euh, ñu ne forage Bertilani bu ñëwee a renforcer tuyau yooyu def forage yooyu ñëw na il a deux ans et que ndox bi léegi ci tuyau bi macha allah doy na loolu moo tax de plus en plus ñi ngi constaté ne que adduction bi mi ngi avance nank-nank ci Euh, yenn village yi. Mhm. et am na yaakaar incha allah mais dajagul fépp ci Tivaouane Peulh. Euh, wax genn wàll gi sax ak guñ fa. Mhm. tey ñi war a am ndox Tivaouane Peulh genn wàll gi amaguñ ndox. Mhm. ñi war a am ndox bënnoo ba tuyau bi agsi na. bor na ngi fa mais ni mu war a tasaaroo mhm. nekkiwul noonu mhm. ñàgg tane na tuuti mais ba léegi ndox bi manqué na fa mhm. yeneen endroit yi na comme boo jëlee tey ay Daaru Salaam ay Safko ay ñooñu ñooñu ay programme immobilier la woon ay programme la woon comme APIX ñun yàlla def na ñoom macha allah ñoom am nañ ndox bi bu daj mais yaa ngi ciy teg ay jéego pour euh, askan wi mën a am ndox bis bu nekk bërki démb rek ak partenaire chinois yi ci loolu lañ nekkoon ci tuyau ndox bi parce que macha allah tuyau ndox bu mag bi ne si moo ndox bi dafa waroon teg lu tolloog euh, cent quatre-vingt quatre kër muy muy ñaari téeméeri kër yu manqué euh, euh, fukk ak juróom fukk ak juróom benn mhm. mais dañ leen ñaan pour ñu xool yoon boo xamante ne si yoon boobu bu ñu ko ci tegee kër yooyu kenn leen daaneel mhm. mais tuyaux yooyu yëpp li ñu ci jublu mooy am na ay sortes yoo xam ne dafay ñëw renforcer mhm. disponibilité bi en eau ci Tivaouane Peulh pour que ñu mën a euh, dëkk bi yëpp ñu mën a xëy bis wax ne ndox bi daj na sànq boo gisee ma embrayé ak ak ma dugg ci mbirum Senelec ci mbirum courant xam nga dafay neex koo xam ne moom def ba mu ba mu baax. Mhm. nga nga nga nga teel ko gërëm. Mhm. Senelec mën naa ne que yóbbu nañ tey électrification ci commune Tivaouane Peulh Niaga à hauteur de plus de quatre-vingt-dix pour cent. Mhm. mooy fukki doomu aadama yoo xam ne soxla nañ courant ci biir commune Tivaouane Peulh Niaga juróom ñeente yi tey am nañ Senelec ñëw na ba foo xamante ne si jot nañ wala léegi mën nañ jot. kon ah, ci kon lan moo tax population bi di génn di def manifester ci wàllu ñàkkum courant bi. non ñàkkum courant moom man maa ko man maay maire commune Tivaouane Peulh Niaga mm-hmm. foo xam ne courant bi agsi wu fa Mhm. c' est parce que Sénélec mi ngi en phase de le faire mhm. Sénélec moom maa ko wax fii te maa ko garanti mhm. ku dëkk Tivaouane ku dëkk ci commune bi xam nga ne que Sénélec def na liggéey bu mucc ayib Sénélec moom wax dëgg neex yàlla ñaxtu courant déggatuloo ko noonu ñaari at a ngi nii déggatuloo noonu ñaxtu courant ci commune Tivaouane Peulh Niaga ñaxtu ndox ak ñaxtu yoon ngay dégg ci commune Tivaouane Peulh Niaga au de courant bi wàllu insécurité bi gis nañ ni dafa bëri est commune bu Tivaouane Peulh am na ay poste de police waaw ñun Tivaouane Peulh euh, commune Tivaouane Peulh Niague du poste de police la ñu am ay gen ay brigade mhm. et poste de gendarmerie mhm. la ñu am looloo gën a bari looloo am sax. Mhm. ci commune Tivaouane Peulh kon lan moo sabab boobu la insécurité bi ba fa am ñàkkum kaaraange bi. waaw jërëjëf baax na sax ci question boobu nga dugg ci xam nga wax naa la dëkk boo xamante ne si moo gën a gaaw a màgg ci Sénégal. Mhm. loolu wane na ne que mbooloo bi ni muy ñëwee amul benn dëkk bu di toll noonu. Mhm. te képp ku wax loolu xam nga ne que jumtukaay yi di ànd ak mbooloo. muy ndox muy courant muy yoon. muy sécurité gendarmerie yëpp c'est pas évident mu topp màggaay boobu. ay leeral tey boo ñëwee euh, ci départ ba benn euh, euh, brigade moo fa nekkoon muy ñàgg. Mhm. diggante bi ñu am poste de gendarmerie bi nga xam ne mi ngi ci Tawfekh Tivaouane Peulh am benn poste de gendarmerie boo xam ne mi ngi ci beneen dëkk bu tudd Kër Marème Mbengue mhm. mais tey poste de gendarmerie bi nekk Tivaouane Peulh attanatul mhm. besoin en sécurité besoin en en en en en, en organisation sécuritaire ci village yu Tivaouane Peulh mhm. ak li ko wër mhm. moo tax euh, waxtaan nañu kilifa yi te jël nañ engagement mhm. ba démb ci guddi rek ci trois heures du matin te li tax mu ne trois heures du matin c'est que dañu seetlu insécurité bi jamono yi ni mu méttee ci Tivaouane Peulh jéggi na dayoo mais bu ñu waxee insécurité muy sécurité bokkul ci domaine de compétence loolu état moo ko yore état moo ko yore à travers police ak gendarmerie. Mm-hmm. donc gendarmerie euh, euh, jël nañ conscience de situation bi nga xam ne doomu aadama yi mu nangutuñ ko dund ci Tivaouane Peulh. Mm-hmm. ba démb rek lu musul am Tivaouane Peulh. Mm-hmm. am na fa démb muy descente boo xamante ne si gendarmerie moo ko def ak loo xam ne kenn mënu la wax nu mu toll ci ay gendarme pour commencer nettoyer Tivaouane Peulh. dañ doon def patrouille. non démb c'était plus que patrouille démb intervention la woon. Mhm. su ma nee intervention la. ba am na ñu ñu defkatu ñaawteef yi nga xam ne jot nañ leen teg loxo. yu bare yu bare bare ci lim bi ñaata. Euh, man li ma mën jàpp mooy xam nga gendarmerie du la wax. tant de personnes laa jàpp. d'habitude bu ñu defee yooyu dañuy communiquer ni jàpp nañu diw par exemple ni jàpp nañ cinq mille personnes nangu nañu matériel lii bu fekkee dañoo doon jëfandikoo loo xamante ni baaxul ci wàllu drogue ak euh, seen biir. moom laa lay expliquer démb la woon ci guddi gi. Mhm. ci ngoon bi ak guddi gi. Mhm. trois heures du matin maa ngi woon foofu. Mhm. parce que dañ jàppoon ay doomu aadama yoo xam ne wax dëgg neex yàlla nit yu baax lañ. am na sax ñoo xam ne ci presse la ñuy liggéey dañuy mm-hmm. fàtte woon génne seen carte de presse. Mm-hmm. ñu yóbbaale leen ci biir. Mm-hmm. li ma retenir. mooy ils ont arrêté plus de cent personnes. mooy li ñu jàpp ci ay doomu aadama ëpp na téeméeri doomu aadama. ndax dem naa foofu tiim leen gis leen. mais li ci am solo mooy jàpp nañ ñoo xamante ne si ci drogue bi lañu nekk. jàpp nañ ñoo xamante ne si ay armes blanches la ñu amee woon. comme jàpp nañ tamit ñoo xamante ne si dañu yor loon seen. pièce d'identité mhm. ñu boolewaale leen ci biir mhm. loolu nag démb lu toll ak peu près fanweeri personne jot mhm. nañ leen libéré ndax ñooñu ci ay problème mu kayit leen jàppe woon ak yu demee mel noonu gendarmerie def na point de presse mais colonel bi ak gendarmerie ñoo waroon bi ñuy def seen point de presse donc li li ñu wax ci biir point de presse bi comme que diffusé guñ ko encore ci réseau yi ba mu dégg ko mënuguma la wax lii la lii la wala lii la a euh, kese ci fépp la ci Dakar wala sax Sénégal mais am na yenn ci ay communes yoo xam dañuy teg ay stratégie de lutte maanaam teg ay comité de vigilance est-ce que loolu yaa ngi ci bàyyi xel wala sax yaa ngi ci xalaat ci boobu la jéem a xool nag ngay def ba fent li ni mel. waaw jërëjëf foog naa bay wax ci mbas bi ngay wax. no pas ci côté insécurité bi la ah ci ci insécurité alors euh, les jeunes de Tivaouane Peulh euh, organisé wu nañ euh, dimanche bi passé. Mm -hmm. pour débattre ci euh, yan anam. la ñu mën a euh, jàppale euh, euh, pour améliorer sécurité bi. Mm-hmm. loolu li ma ci jàpp mooy ñun yàlla dafa def semaine bi nii la ñuy def passation wu mm-hmm. mooy préfet bi nga xam ne di ko moom tamit gërëm ci président Macky Sall ndombal tànk yu mu ko jox mooy woon préfet arrondissement de Bambilor léegi mu ñëw préfet arrondissement de Sangalkam. Mm bu ñu wax waxu sécurité on est obligé de waxtaan ak moom. Mhm. ndax moom mooy yore compétence boobu. Mhm. bi ma ci waxtaan ak moom dafa ma ne bu yàlla defee incha allah passation bi mu jàll ci nu mu gën gaaw ci semaine bi danañu woote benn réunion de de sur la sécurité. Mhm. Euh, au niveau de Tivaouane Peulh. réunion boobu am na yaakaar ne semaine bi ñu dugg nii incha allah danañ ko mën a am pour que gis-gis bi nga xam ne ñun. mairie bi ak gis-gis bi nga xam ne tamit askan bi waxtaanee na ko. mun ko jébbal préfet. pour que mu nongul ñu yenn décision yoo xam ne war nañ ko ci mën jël décision yooyu dem nañ ci point yu bare dem na ci comité de vigilance yi nga xam ne euh, euh, euh, dafa am nu ñu koy war a organiser mhm. ba mën ko tëral dem na aussi ci Euh, euh, au niveau des charretiers parce que ji ñu ma leen dara waaye dañu gis ne que insécurité bi souvent charretiers yi mooy ñiy dawal charrette yi mhm. dañ ci am complicité ñenn ci ñoom nag parce que mhm. duma leen boole jiiñ leen ko ak ce soit mais constaté nañ lu ci bare ci insécurité bi. Mhm. ay boroomu charrette dañ ci takk. Mhm. donc loolu tamit euh, dañu bëgg jël benn arrêté pour mën a interdire. Euh, circulation wu charretier yi. Mhm. lu jóge ci 9h ci suba. Mhm. ba ci euh, euh, non 19h muy muy 19h ci. ci ci ngoon muy 7h ci ngoon gi. Mhm. ba ci 6h30 du matin ci suba ñu wax léegi benn charrette bu mu dawati ci commune u Tivaouane Peulh loolu dana tax peut-être yenn ñaawteef yi ñuy faral di gis ci guddi gi ñaawteef yooyu ñu mën a dañ mais préfet aussi waxtaan nañ ci loolu nee na de delà de arrêté bi nga xam ne mairie bi mën na ko jël naak ko jébbal pour ko moom tamit mu mun jël beneen arrêté de renforcement ci loolu mais beneen point ma la koy indil boo xam ne dafa am solo tamit ci euh, euh, euh, sécurité mhm. muy éclairage public mhm. xam nga dëkk nag nu muy màggee bu amee doole rek mhm. du fépp lañ mën def ay lampe waaye au moins mais le minimum est-ce que am na si non le minimum am na tey macha allah am na lu mairie bi def am na lu état def mais ñun jël nañ décision ci li ko gën a nag accéléré mooy problème insécurité bi ci jamono yi passé mhm. euh, que danañu mettre à disposition ay euh, ñu ngi jënd benn lot de lamp solaire mhm. boo xam ne euh, fi nga xam ne réseau électrique bi sax àggu fa mhm. ñu mën a poser ces système de lamp solaire pour que niveau d'éclairage bi mën a augmenter wu surtout ci bërëb yi nga xam ne foofu la ñuy constater ne que foofu la insécurité bi ëpp ci Tivaouane mhm, ci noonu ba tey si wàllu réalisation yi ba nga toogee ci boppu mairie ba léegi addu ci wàllu infrastructure euh, ba nga nekkee ci boppu mairie bi 2014 ba léegi ci wàllu infrastructure ban bilan nga mën a teg suñu loxo waaw je pense ne lim nañ fii léegi ci départ bi euh, infrastructure yoo xam ne commune bi réalisé na ko mhm. foog naa lim naa marché yi lim naa euh, ma préciser euh, ci wàllu tali yi moo tax may wax maanaam dem dikk bi oto yi fan la ñuy jaar gis nañu Tivaouane Peulh dafa bari ay tali yu xonq waaw xam nga nag euh, dafa baax ñuy waxante dëgg mhm. wax naa la fii léegi nag man maay premier maire commune Tivaouane Peulh Niaga mhm. commune Tivaouane Peulh Niaga li développé commune mooy fiscalité locale mhm. fiscalité locale mooy lan mooy commune boo xamante ne si ñi fa dëkk am na l'impôt yoo xam ne war nañ ko fay lemp yooyu bu ñu ko dajalee. Mhm. l'impôt yooyu lay mairie bi jël di ko liggéeyee. Mhm. mu baax nag tey ñu leeralaat askan bi. Mhm. ni ko commune Tivaouane Peulh parce que kenn fayul l'impôt. ci wàllu recette yi ci côté marché yi te lan moo tax euh, li ko sabab sax laataa loolu. xam nga recette recette marché. cent franc cent franc yooyu boole ci table. mënuloo ci tabax dëkk. te Tivaouane Peulh dafa mel ni amul ay entreprises yi nga xam ne dinañ mën a fay ay impôts. amu fa benn benn rek laa la wax. ci entreprise bu fa nekk amu fa. Euh, euh, zone rurale la woon mi ngi ñëw zone urbaine mais amul benn benn benn entreprise bu basé wu tey ci Tivaouane Peulh ñàgg buy fay impôt. Mhm. dafa baax doomu aadama yi xam ko. Mhm. même station de service yi nga xam ne dana am toujours luy rot ci ñoom di dem ci kii bi Tivaouane Peulh amagul benn station ñi ngi commencé nag def nañu ay autorisation pour ñett station yoo xam ne mhm. ñu ngi taxaw ci Tivaouane Peulh yooyu dana permettre ñu mën a doomu aadama yi sax dootuñu génn commune bi di dem commune jàmbur di jëndi carburant mhm. mais dañ ko mun jënd ci dëkk bi mhm. rawatina dolli taxi yooyu nga xamante ne si euh, kii bi da koy fay euh, euh, station yi dañ koy fay da ciy mën a am solo mu dugg ci mais beneen bi fiscalité locale boobu may wax mooy xam nga dëkk xam nga lu koy defar mooy kenn ku nekk li nga dugal ci biir kees bi bu ñu ko boolewee jumtukaay yooyu yëpp. Mhm. mu am nu mu toll ñu liggéeyal ko askan bi. Mhm. tey wax naa la ko boo ñëwee ci commune Tivaouane Peulh fiscalité locale duggaluñ ci dara. te loolu lan moo ko indi. dafa mhm. am solo. xam nga bu ñu wax fiscalité locale ci acte trois décentralisation daf ci am yenn yëf yoo xam ne état bi daf ko jagleel euh, collectivités yi. waaye yow boo ñëwee euh, du impôt impôt direct du loo xam ne man mairie bi dama koy mën dem collecté. état moo koy collecté di ma ko jox. Mhm. exemple rek bi ci ëpp doole tey mooy foncier bâti. Mhm. tey boo gisee kër yi nga xamante ne si ñi ngi ci commune Tivaouane par ñàgg. Mhm. jàpp nga ne ko nu mu ndaw ndaw ndaw am na un milliard boo xam ne tey mënoon nañ ko am ci foncier bâti. mais foncier bâti du man maa koy collecté. kan moo koy collecté bu état moo koy collecté. jël ko jë jëbbal ma ko. liggéey boobu nag état mi ngi koy def waaye liggéey bi pareegul. ndax xam nga lan mooy indi gàllankoor yi. waaw xam nga leen di gàllankoor mooy mooy mooy commune bu bees lañ. Mhm. ñu ngi koy liggéey pareegul. te yeneen communes yi nga xam ne ñu ngi koy jël te ñu nekk ci Ndakaaru communes yooyu ay ati at ñi ngi fi. Mhm. donc xam nga tamit ki nga xamante ne si mi ngi soog a sanc. Mhm. ak ki nga xamante ne si yàgg na fi. du bokk euh, fi Euh, tax ni mu koy recouvrer hmm. mais am na yaakaar ne bu ko état bi paree rek comme comme yooyu bu ñëwee delloo ko si ci commune bi danañu permettre ñu mën a am euh, euh, possibilité pour que mën a def yoon yooyu ngay wax hmm. mais yoon yooyu taxu ñu toog hmm. baax na ma indi la ay précision waxoon naa la fi léegi-léegi ne lu toll ak téeméeri million partenaire dugalal nañ ñu ko ci yoon bi nga xam ne moo jógee ñàgg dem ba ba wax naa la mairie bi defar na yoon bi nga xam ne moo jógee ci commune bi. Mhm. dem Namoura te même yoon boobu ñu ngi koy liggéey moo jógee Namoura dem Sokabek. mais yoon boobu ba mu fay mujj dafa xonqoon de. dafa xonq ba léegi sax. Mhm. ndax dama lay wax de sunu commune attanagul yoon bu ñuul. Mhm. ndax yoon bu ñuul ay millions yu bare bare la. te mën naa la laaj amul benn commune boo xam ne ci sunu zone muy commune Sangalkam. muy commune Euh, Bambilor hmm. muy commune Jaxaay boo xam ne defar na yoonu goudron ci budget la ko def amul hmm. képp ku fa am yoon yàlla def na da ko am ci cadre Promoville hmm. ci cadre Fera ak ci cadre Ageroute mais ci loolu tamit baax na ma leeral la tey ne que ñëw na ci convention bi président Euh, Macky Sall euh, gis na yoon yu xonk yooyu. Mm -hmm. métti na ko ñaan na euh, euh, wax na Ageroute pour que mu defaral ñu juróomi juróomi kilomètre ba juróom benn kilomètre ci tali bu ñuul. Mm natt nañu yoon yi muy axe 1 axe 2 axe 3 axe 4. Mm-hmm. yoo xamante ne si jëbal nañ ko ko pour que mu defaral ñu ko. Mm-hmm. jël nañ nag engagement que président daf la ne na nekk lu gaaw a gaaw. Mm-hmm. kon ñoom it xamal nañ ñu ne que noonu ko borom réew mi bëggee ci ñun dañ ko tëral nu mu gën a gaaw. jox nañ leen app wala maanaam délai boo xam ne dinañ ko tàmbali. waaw nee nañ ma daal monsieur le maire kàddu bi nga xam ne leer na. mooy ci weer yii di ñëw. balaa élection. liggéey bi tax ah élection yi li ci des bëriwul daanaka ah. juróomi weer képp moo si des. moo tax man di rafet naa njort. Mhm. ndax président Macky Sall lu muy faral di wax lépp dañ ciy gis euh, dañ solution moo tax ma jàpp ne que Ageroute euh, comme que ndigal la buñ ko jox te am na yéene def ko ndax nee na ma xaalis bi disponible na. Mhm. xaalis bi naka defar yoon yi. Mhm. du xaalis bu ñuy wuti xaalis bu ñu voté la ba pare. bu disponible kon jàpp naa ne que incha allah. Ah. yoon yi dootul yàgg. xaalis yi ci woo disponible yàgg naa disponible ci réew mi te daanaka liggéey yi ba tey day am gàllankoor est-ce que foofu problème de volonté du posé wu. waaw mais xam nga damay expliquer man xam nga euh, bu ma toogee euh, njiitu réew mi envoyé ma service technique yi Ageroute ci ci ci ñaan bi ñu ko ñaanoon. Mhm. ñu ñëw xayma ko teg ko. Mhm. man rafet naa njort. Mhm. ndax gis naa samay moroom am ko. gis naa ko ci commune euh, Sangalkam. gis naa ko ci commune Jaxaay ci yenn axe yoo xam ne wax dëgg neex yàlla Promoville ak yëpp parce que Promoville tamit may nañ ñu ko. Mhm. Promoville tamit état bi jox nañu d'urgence cent soixante dix huit millions muy ñaari téeméeri millions yu manqué ñaar fukk ak ñaar. Mhm. yoo xam ne tamit bu ñëwee téeméeri million bi man dama ko jagleel ndox. Mhm. Promoville jël na ko nee na mën na nekk. Mhm. donc téeméeri millions boobu ak ak juróom fukki millions yi loolu yëpp ci ndox bi lay dem. Mhm. moo tax euh, ma am yaakaar ne que du ay naxasaay parce boobu ba léegi toog naa mosuñu ma woo ne ma deen la defal lii. Mhm. damay wax de. dëgg mosuñu ma woo ne ma deen def la kon nag buñ ma woowee ne ma nag. yaa aaye rajo la ñu defaral. Mhm. gëm naa ko. kon ñu taaxirlu si say kàddu junj nga ko ci wàllu recette fiscale ni da ngeen di am ay jafe-jafe weer yee ñu génn defoon nañ lii di découpage administratif euh, ba daanaka ay communes yu bari fii ci Ndakaaru dañ ko dogat dogate yéen fan lañ leen rattaché seen commune. waaw même rek parce que xam nga su fekkee dam la topp li ma bëggoon wax yëpp dama ko mën a wax. kon mhm. ba ma mayee rek ma dolli la ci recette fiscale nga tey boo jëlee commune Tivaouane Peulh ñàgg. ku mhm. nekk xam na ni mu toll. dafa jógee Tivaouane dem ba Denis mais tey état du Sénégal dafa jël benn projet bu ñu woowee pôle urbain du Lac Rose. Mhm. mu dépare ñàgg. Mhm. jëm Deni Géej Nord. Mhm. foofu yëpp état du Sénégal immatriculé ko. def ko titre foncier. bind ma ne ma monsieur le maire maytul la yow ak sa conseil municipal nga fiy délibéré. 2016 ba léegi. amatuñu benn recette ñeenti at a ngi nii amuñu benn recette bu jógee ci boor boobu. te ñooñu kat am nañ ay jafe-jafe am nañ ay soxla. Mm-hmm. di ci xaar mairie bi mairie bi doon xaar taxe bi nga xam ne mën na ko jëlee ci ñoom pour delloo ko ci askan bi état bi bind ñu ne ñu fii pôle urbain wu Lac Rose la maytuma leen ngeen délibéré ci. Mm-hmm. foofu yëpp jëlewuñu fa benn koom-koom. Mm-hmm. nga dellu si ci Tivaouane Peulh nga ñëwaat encore. Tivaouane Peulh di bërëb boo xam ne macha allah ña fa dëkkoon ñoo yoroon suuf si ñoo ko moomoon ñoo ci daan dund ñoo ci daan béy ñoo ci daan sàmm. di ci jëriñoo. mais état xëy def ay projet yoo xam ne teg ko foofu. tey projet yooyu ñu teg foofu ak titre foncier yooyu ñu teg foofu tax na ña fa nekkoon di ñaxtu am ci yaakaar muy sinistre yi muy waatuwaan pël seen moomeel boobu dafa dem. Mhm. dafa dem parce que ñi ko état bi attribué tey mhm. ñoo ñooñu ñooñu ñoo ko moom. Mhm. tey boo ko xoolee sinistre yi jaaxle nañ sama am di jàmm yi sama dëkkandoo yi waatuwaan pël jaaxle nañ ndax seen suuf état jël na ko. tey amatuñu leneen lu ñuy def mais li ci metti mooy jamono boobu nga xam ne ñoom ñu ngi ko yoree woon. dem ak dikk bi amoon na ay taxes yoo xam ne mairie bi daf ko fa daan am. Mhm. muy ordre de recette. Mhm. tey ordre yooyu yëpp amatuñ ko te li tax amatuñ ko mooy lan mooy suuf soosu état immatriculé na ko jël ko jox ko ay jàmbur. Mhm. donc état laataa moo jël yooyu la dogal est-ce que waruloon amal ab waxtaan concertation ak yéen kilifa yi faree ci mairie bi ba laataa moo jël ba laataa moo def li ni mel. loolu mooy li jaadu te loolu mooy li président Macky la di faral di wax dëgg la mooy suuf balaa ñu koy immatriculer waroon nañ waxtaan ak collectivité bi pour accord ci immatriculation bi. Mhm. mais immatriculation dañ koy def te duñ ko fekkee. Mhm. mais lii métti Tivaouane Peulh c' bañ koy immatriculer boobu commune bi amagul woon nekk guma woon maire. Mhm. titre foncier yooyu may wax tey dañ ko fi fekk. ko fi fekk kon bu dee loo xamante ne si jógewul ci suñu nguur dañ ñëw fekk ko fi. dañ koy respecté. mais di ñaan encore nguur bi. que lépp luñ ci mën dimbale doomu aadama yi. nañ ko ci dimbale doomu aadama yi. Mhm. kon loolu yëpp wane na ne que mooy li mu lay wax rek que potentiel lu Tivaouane Peulh macha allah benn commune ëpp ko fi potentiel mais loo gis rek nànk-nànk lay ñëwee ba keroog mu mën a sotti. ma dellu si ci question bi nga ma waxal léegi jëm ci affaire u euh, euh, découpage bi. Mhm. man damay faral dégg sax euh, monsieur le ministre Omar Gueye maa ngi koy nuyuwaale au passage ndax moom mooy sunu njiit ci ci zone bi. Mhm. dama koy faral dégg muy wax sax que découpage. pourquoi mu ne découpage euh, redimensionnement la. mais loolu duñ defoon juróon na coow foofu de. ci waaw donc ma ñëw ci d' abord. lu mhm. tax ma ne du découpage redimensionnement la. Mhm. c' est que ñëpp xam nañ ne que découpage bi ñu defoon ci jamono euh, yu yàgg yi. Mhm. dafa amoon ay problème yu mu indi woon. yoo xam ne rafetul woon ndax nga jógee commune di dugg commune di gënaat commune di duggaat commune. loolu yëpp rafetul woon. président Macky Sall jëloon ci ay décision wax ne que découpage boobu nga xam ne noonu mu mel euh, warul woon mel noonu euh, dañ ko war a jubante mhm. loolu la def ci li concerné département de Rufisque mhm. tey muy donc la commune de Bambilor la commune de Sangalkam la commune de Tivaouane Peulh-Niaga mhm. yàlla def ñu jël ñàkku rab nga xam ne c'est village traditionnel dolli ko ci commune ci commune u Tivaouane Peulh ñu ci sant di ci kontaan ndax waa ñàkku rab sax hmm. loolu neex na leen hmm. bëgg nañ ko bëggoon nañ ko hmm. kon loolu jàmm la indi li ci des nag euh, mooy département de Kër Massar kenn ku nekk xam nga nekk Kër ma Massar màgg na màggaay boo xam ne laajoon na ñu def ko département ay euh, lu lu lu ko laajoon la dolli ci président Macky Sall bi inondation yi amee daaw mu xam ne fii problème yi fi nekk ay commune attantuñ ko il faut que obligatoirement ñu def ko département pour que ñu mën a am ay ressource et des budgets additionnels hmm. yu ñëw dugg si pour mën a def liggéey bi nga xam ne département bi laaj na ko hmm. loolu liggéey bi sax door na avant parce que tey boo demee jaxaay ak foofu yëpp euh, euh, tawagul mënu ma a wax hmm. euh, nu muy mel mais naa la wax tey de liggéey ba ñu fa liggéey wax dëgg neex yàlla askan bi teg nañ ci seen bët te gis nañ ne que lii normalement taw bu fi ñëwaatee jafe-jafe ñu amoon du fi dellu si ci mbàllum département bi bu Kër ma Massar ak coow li mu indi xam nga lu bees lu bees euh, ñi ko miin. Mhm. dañ koy ñeme. Mhm. ñi ko miinul dañ koy ragal. Mhm. waaye nag. bu ñu àggee ba ci kanam. Mhm. bu département bi commencé dawal. Mhm. ba ñu gis jumtukaay ak bénéfice yi nga xam ne département da koy indi. Mhm. am naa yaakaar ne que euh, population bi danañ gën a kontaan seen xel dana gën a dal. ci li nga xam ne président Macky Sall yéene na leen ko. Ah, ci tey kàddu junj nga ko ci wàllu inondation muy mbënd mi seetlu nañ at bu ne nawet bu jëlee dafay sonal euh, banlieue bi rawatina ci zone Kër Massar est-ce que seen commune bi c'est le cas. waaw ñun am nga sant yàlla bu baax parce que ñun suñu différence mooy. Euh, sunu suuf ni mu mel macha allah moo baax. Mhm. suuf bu bu bu ñeme ndox la te euh, euh, ak lu mu taw taw taw taw taw. Mhm. seetlu nañ ne que même bu dee taana tey. Mhm. ci ëllëg si. taataa bi dafay dem. su mu la waxee tamit ne amul fenn benn point buy am inondation waxuma dëgg. am na waaye ni ñuy coowee inondation ci yenn dëkk yi. man mënuma ko coowee noonu. am na nag ay jafe-jafe am na ay point bas. yoo xam ne seetlu nañ ne que saa bu tawee. Mhm. foofu ndox bi daf fay taa. est-ce que di nga jéem a jël les devants comme que nawetu ren bi même si bu fekkee ni sax euh, taw bi daanaka yéex na mais préparer terrain bi ba tawee rek doo am benn jafe-jafe ci wàllu inondation. waaw jërëjëf xam nga man ci loolu lay liggéey. Mhm. moo tax boo mënee boo jëlee ay devant dam lay dégluwaat xam nga wàllum inondation euh, ay devant da koy jël ci terrain boo xam ne baaxoon na ba pare. Mhm. waaye mu am yenn rectification yooyu def. ndox bi su ñëw rek dem. mais am na terrain yoo xam ne wax dëgg neex yàlla xuur la. Mhm. bo boobu devant mënuloo ko jël parce que département de Rufisque ci zone bi ñu nekk. Mhm. amagul assenissement mhm. plan directeur d' assainissement bi sax ba léegi toogagul. APIX macha allah am na ko moom. mais yeneen béréb yu bari amuñu ko. kon tey boo jëlee ay disposition foo xam ne xurul te ñu dëkk fa mhm. nga bëgg jël ay disposition yoo xam ne pour que ndox bi bu ñëwee fu muy dem mhm. ndox boobu boo jëlee disposition canal ba nga fay def ak la nga fay def foo koy dugal mhm. loolu muy benn problème mais constaté nañ ne que bu ñëwee euh, solution yi nga xamante ne si moom la ñu doxal fu mu nekk nii daaw parce que daaw la ñu commencé daal dëgg ba daaw daana am métuuti mais bu daaw xaw na métti moo tax daaw ce qui s'est passé dañu jël automatiquement ay camions man ak adjoint maire Boubacar Ka ak Ibrahima Ndoye ñu dugg ci terrain bi dem bépp bërëb boo xam ne dañ ko war a manque ñu dem ñu manque ko mhm. loolu lañ def comme solution daaw mhm. mais comme solution ren euh, yenn point yi nga xam ne dafa met dëgg dëgg dëgg dëgg dañu mën dañu mën am quelques moto pompe teg ko fa pour que mhm. affaire bi bu ko xawee jéggi dayoo ñu mun def du refoulement ak ay tuyaux teg fa ay moto pompe refoulé ko euh, problème bi nag pour le régler d'une manière définitive am problème parce que xam nga tout est question de niveau su fekkee ñi tabax ak FIDITA. Mhm. amuñu décalage hauteur boo xam ne may nañu ñu mën fa def dara. Mhm. problème boobu dafay faral. Mhm. di xaw di yàgg. mais nag euh, ci plan d'aménagement d'assainissement bi nga xam ne département de Kër Massar am na ko parce que bu wér département de de ci lañ bokk. mais ci limite bi lañ nekk ak Kër Massar. donc je pense ne que Kër Massar ci plan d'assainissement yooyu ñu ciy travailler war nañ mën a dans l'avenir. envisager ay extension de réseau vers. Euh, la zone de Tivaouane mhm. addu ci wàllu coowal suuf conflit foncier gis nañ ni daanaka problème bi dafa bëri ci jamono am na benn collectif sax bu ci judd mooy les victimes de Tivaouane Peulh année 2017 ba léegi ñoom dañoo amoon seeni suuf am na sax ñu jotoon a tabax waa Descos ñëw daaneel ko boobu ba léegi coow li Eh, ci jamono bi Mohamed Boun Abdallah Dionne nekkee premier ministre daloon na leen ñu waxtaan ñoom ci ayu bés wala sax weer bu ne dinañ génn def conférence de presse wala sax ñu takk morso yi xonq ba léegi daal ñoom ñoo ngi daw seen ginnaaw suuf ci boobi la coow yow en tant que maire boobi la localité ban xibaar nga ñu si mën a dolli. waaw jërëjëf euh, daf may neex toujours boo waxee ci coowu suuf parce que sama askan lay concerné. Mhm. mais xam nga tey mënoon a mhm. ma bi moo def ci suuf si. Mhm. waaye foog naa bi mu fi toogee ba léegi. Mhm. kenn mosul woo mairie bi ne mairie bi yaa def li ci suuf. Mhm. te dama koy wax di ko waxaat ndax am naa chance le 8 janvier dernier maa ngi toog colonel Sambourou toog. Euh, ay ministre toog directeur de toog président Macky Sall toog. Mhm. ma jël kàddu bu leer ci kanamu président Macky Sall. ma ne ko monsieur le président République bis bu nit indee kayit boo xam ne commune bi moo ko def ci yàq suufu Tivaouane nañ ma ko won ndax ba tey kenn mosu ko indi kon ay problème la yoo xam ne dañ ko fi fekk. Mm-hmm. li ñuy mettit lu mooy lan mooy état bi jëloon na ay engagement mm-hmm. wax sinistré yi finalement bàyyi naa leen fii ministre ñëw Aly Ngouille Ndiaye mm-hmm. gouverneur ñëw loolu yëpp ñu leeralal ñu ko suñu xel daloon ci premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne wax ci ñu jël liggéey ko biñ demee ba mu jeex nag am na ay évolution yu ñëw yu tax président Macky Sall ne kon léegi man li ma gënal mooy fii nañ ko jëlaat encore nañ jël askan bi yóbbu leen feneen jël na décision génn na ñaar fukki hectares yoo xam ne ci pôle urbain bi wax na leen ñu jébbal ko askan boobu nga xam ne ñu ngi ñaxtu ñu ngi jooytu ba léegi. Mm-hmm. kon xam nga man en tant que maire. Mm-hmm. su ma toogee président Macky la wax euh, euh, jàngoro bi am na. waaye mett na métti boo xam ne du leen bàyyi ngeen wécc. Mm-hmm. jox naa leen beneen ñaar fukki hectare bu bees. ci pôle urbain déjà solution la. Mhm. werante nag am na parce que maa ngi dégg nekk sinistre yi nee nañ ñoom li leen gënal mooy ñu toog foofu ñu nekkoon. gis nañ ñi sax foofu ñu toog ñoom ñu ngi tàmbalee def euh, di rëdd di def ay lotissement kon ñoom kon nag daa mel ni am na gis-gis yi xaw a waroo de. waaw moom moom laa lay wax rek ma xam ne naan léegi léegi jàpp naa nekk ñoom foofu ñu nekkoon fa la ñu bëgg a des. Mhm. mais nag xam nga euh, problème mu titre foncier. Mhm. day àgg foo xam ne. buñ ci jàppante jàppante ba àgg ci président de la république. Mhm. ba président de la république sama kanam jël ci dogal. Mhm. ñëpp a dégg ko ñëpp a gis ko. Mhm. Euh, euh, dogal boobu ci la ñuy mën a wéy. kon sama askan ak sinistré yi comprendre naa seen bëgg-bëgg euh, ànd naa ci ak ñoom ci ci ci ñu am solution mais tamit sama njiitu réew muy président Macky Sall bu jëlee décision te décision boobu boobu mu jël mu jël ñaar fukki hectares. Euh, delluwaat ko askan bi jox leen dama jàpp ne que euh, waxtaan bi ci solution boobu la war a jëmee waaye waratul jëmee ci werante moo tax quelque part nag ci loolu dootul sama ressort. Mhm. parce que man dama fa demoon di défendre. Mhm. Tivaouane dama yàgg xeex suufu Tivaouane mhm. demoon nañ ba Sambour yi daf ma yeewoon. man mii maire dugal ma ci oto bi lu ñu mësut a gis coow loolu demoon na fu nekk ndax sama intérêt askan laa doon défendre. ba loolu dal ma kon. tey loolu xamee nañ ma ko te ñu ngi ma koy seedeel hmm. mais ñaan rek na solution boo xamante ne si jig na ñëpp arrangé na ñëpp am comme ça jàmm am ñoom lu tax nanguwuñu dem fële selon yow dëgg neex yàlla damay dégg mm-hmm. parce que depuis que solution boobu ñëw mm-hmm. dama jàpp ne que président de la République bu toogee ak ministres yi ak service état yëpp mm-hmm. ne lii laa décidé man en tant que maire démembrement état la damay mën a Euh, euh, euh, maslaa te avance ci décision boobu. Mhm. ñoom li ñu ma wax comme information mooy ñoom ñoom nee nañ foofu ñu leen yóbbu gënalu leen. Mhm. fi ñu nekkoon la ñu bëgg a des. Mhm. loolu laa ci am comme information. Euh, addu ci wàllu politique daanaka juróomi weer képp moo des ñu egg ci élection locale yi muy janvier deux mille vingt deux dàq nañ ko dàqati ko est ce que euh, élection yi njortaatoo ñu dàq ko ndax euh, ku jàngoro jii di Covid dix neuf muy troisième vague bi dafa gën a métti te activité politique yi yëpp daanaka parti politique yu bëri daanaka dakkal nañ ko. waaw jërëjëf ci question boobu nga laajte man sama gis-gis laa la mën a wax. Mm-hmm. man de ñaan naa yàlla ñu bañ ko dàq. Mhm. nañ ko téye li war a am am. Mhm. ñu continuer ci waar wi. Mhm. ndax tant que ñu ngi ci ay période werante élection. kenn ku nekk da fëgg sa dënn ne mën a mën a mën a mën a. te mën a mën a boobu day wàññi temps bi nga xam ne moom la ñu war a def ci liggéey bi. man li ma gënal moo ñu dem ci élection yi ku mën sa morom duma ñu jéggi dem ci leneen. Euh, li nga wax nag léegi mooy euh, euh, mbas bi nga xamante si. Euh, mais laata laata laata loolu sax euh, mën nañu wax ni dangay ngay euh, déposé waat sa candidature ci ñeel ci boobu la localité. waa xam nga yaa ma ko njëkk laaj ci benn chaine boo xamante ni si ñëpp ñu ngi koy déglu. Mm-hmm. sama kàddu day leer. Mm-hmm. liggéey bi muy liggéey. Mm-hmm. ak yéene bi ma am ci commune Tivaouane Peulh-Niaga. bëgg naa def deuxième mandat. pour que liggéey boobu. ma mën ko àggali. ñaan naa sunu borom. incha allah. yéene boobu nga xam ne moom laa am moom la parti bi am moom la ko coalition benn bokk yaakaar am. Mhm. ñaan naa yàlla liggéey boobu ñu ñu ñu am ndam ba mën ko àggali. est-ce que li nga jotoo def lépp euh, par exemple ca woon Peulh yow am nga yaqin ni maanaam boo laajaatee boppu mairie bi dinañ la falaat. amuma ci xel ñaar. Mhm. man su mu ci amoon xel ñaar rek du ma sax du ma sax waxaat bëggaat na. Mhm. am naa yaakaar ne suñu borom mooy dogal. waaye am naa yaakaar ne que bu ci yàlla àndee. Euh, deuxième mandat bi yàlla dinañu ko may ñu am ko ànd ca kilifa yi nga xamante ni si ñoom la ñu war a àndal. Mhm. parce que ànd tamit dañ koy jubanti. Mhm. dañ koy jubanti mooy lan mooy saa booy départ gis nga ñoo xamante ni si boo bëggee liggéey bi gën a baax. Mhm. boo bëggee liggéey bi gën a gaaw gën a normal da nga leen jël nga boole leen ci équipe bi. pour que liggéey bi gën a baax. donc rafet naa jox ni que ñu war ànd bu ñu àndee dañuy am suñu deuxième mandat àggali liggéey bi di nga xam noonu lañ ko yéenee. ci askan bi. ci yan baromètre nga teg boo laajee tey bopp mairie bi di nga ciy faluwaat. waaw mais mais dama ko teg fu wóor xam nga fan laa ko teg. Mhm. mooy dañ fi deful lu ñaaw. premièrement. mais ci wàllu deuxièmement ma àggali. Mhm. dama ne dañ fi deful lu ñaaw. Mhm. defuñu fi dara lu ñaaw. te jàpp naa ne que loolu mooy premier baromètre bi gën a am solo. deuxième baromètre bi mooy man jàpp naa ne sama bilan bi ñu def incha allah. danañ ko défendre te bu ñu ko défendre population bi nañ ci ànd ak ñoom est-ce que bilan bi population bi yëg gis nañ ci seen bopp. man jàpp naa ne que bilan bi ñi nga xam ne ñi ngi koy gis xam nañ ko te pour jàpp naa ne population bi pour man. Mhm. gis nañ ko te danañ ko gën a gis encore ci jamono yi di ñëw. par rapport ak li moo di sur le terrain daanaka mouvement yi ak association yi lay xeex daal dafa bëri foofu la teewoon pël. dafa bari ci Sénégal gi yëpp. mais rawatina teewoon pël. déedéet déedéet mënu ma ne rawatina teewoon pël teewoon pël sax la gën a tuuti ci Sénégal gi la gën a ëpp. Mhm. te gis nga bu ma gisee ay mouvement di ñëw. est-ce que boo déggee mouvement rek muy mouvement dafa contre déedéet. yu si mouvement day ñoo xamante ne si gis nañ ne que ñoom war nañu indi seen euh, euh, gis-gis. Mhm. ci doxalinu askan bi. Mhm. am na mouvement yu bari yoo xam ne ñu ngi waxtaan ak ñun. Mhm. bare na. am na mouvement yoo xam ne waxtaan ak ñun. mais li ma la wax rek ñun li ñu am déjà rek. incha allah bu ci yàlla àndee doy nañu pour faluwaat. ci wàllu élection locale yi janvier mille vingt deux ubbiwaat nañu révision liste électorale yi ni ki démb ca Tivaouane Peulh naka la fa demee. waaw c'est encore nag timide parce que démb samedi 31 la ñu tàmbali révision yi ñun ñaari bërëb la ñu am. Mhm. lañu amoon bu njëkk sax moom la ñu amaat ni mhm. donte sax bu ñu amoon ñetti bërëb mu gën a baax. Mhm. waaye ñaari bërëb la ñu am benn baa ngi ci euh, euh, Tivaouane Peulh benn baa ngi ci Niakoulrap. li ko indi mooy révision yi passé yëpp benn bi Tivaouane Peulh la woon benn bi ñàgg la woon. moo ñëw ñàkk mhm. ndax bi des ci Tivaouane Peulh foog mu des ci Tivaouane Peulh ndax foofu la électeurs yi gën a bare mhm. mais li tax bi nekkoon ñàgg mu ñëw ñàkkurab c'est que xam nga wax naa léegi ne day am ay changement d'électeurs yu bare mhm. ndax nekk nekkul woon ci commune Tivaouane Peulh ñàgg léegi lañ ko rattaché ci commune Tivaouane Peulh ñàgg donc day laaj ay euh, euh, changement yu bare yoo xamante ne si tey ña fa nekk ak askan bi fa nekk soxla ko moo ëpp tey li nga xamante ne si moo nekk ci côté ñàgg te mu laaj ay inscription mhm. euh, ak i changement yu bees loolu moo tax mu dem ñàkkurab mais bu ci kanamee tamit xam naa ne dañu mën am ay ay ay ay ay ay service tournant yoo xam ne dañu permettre lan mooy expliquer par exemple timidité bi nga wax sànq lan mooy expliquer timidité bi nga wax sànq waaw timidité bi xam nga démb la tàmbali samedi la mhm. démb la tàmbali samedi la am na ñu bëri ñoo xam ne yëguñu ko. Mhm. comme tamit am na ñu la dimanche la dañuy noppalu. Mhm. duñ koy faral nekk bis boobu la ñuy dem pour changer sunu carte électeur mhm. donc am naa yaakaar ne que incha allah euh, plus ñuy monter et puis day soog a tàmbali. noonu la chaque année noonu la. premier jour yi seetlu nañ ne askan bi ñëw du bare. ci fin bi lay nit yi di gën a bare. Euh, euh, sénégalais moo mel noonu noonu la ñuy faral doxalee. révision liste électorale yi tàmbali na jur coow balaa nga laataa nga dem police di bindu ci wàllu carte d'identité balaa nga see jot day xaw a euh, day xaw a sax yàgg loole tax euh, mbiccoo mbaaloo jot naa am ci wàllu euh, société civile bi ak ñu yëngu ci wàllu politique bi ba ñenn ci société civile bi sax dañoo préconiser woon ni dialogue politique bi dañ see waroon a bàyyi xel loolu ban xalaat nga si am. waaw xam nga d'abord damay jàpp ne que état du Sénégal li mu doxal looloo normal. Mhm. ndax tey. booy ñëw di wax ne dama bëgg a bindu carte électeur aw ma carte d'identité aw ma dara. Mhm. wax dëgg neex yàlla. Mhm. Euh, loolu mën na indi benn sumbuxloo boo xam ne bu ëllëgee werante bi day bare. Mhm. ndax boo gisee ci liste électeur bi ñu koy bind. sa numéro carte d'identité moo fa nekk. kon tey bu fekkee ne yow amuloo carte d'identité. kon il faut ñu dem jël yeneen numéro sax dugal ko ci biir. loolu mooy premièrement. deuxièmement euh, euh, bu fekkee dañu bëgg a tëral li nga xam ne mooy yoon. loolu mooy. d' abord nga dem am sa carte mhm. ndax yow boo xamee ne bëggoon nga voté waroon nga dem toppatoo sa carte d' identité bu yàgg mhm. waaye ñi ñu waxal ni mooy ñi nga xam ne amuñu carte d' mhm. te bu fekkee te ñi amul carte d' identité toppatoo wuñ ko ba léegi malheureusement ci condition yi ma gis ne que loolu la ñu tëral pour que ñu mën a remplir condition électeur duñ ko mën a remplir euh, li ñu desee barewul ndax période de révision bi ay un mois dix jours lay nekk à peu près. mais délai bi am na ñi ci faree ci kujje gi ñi xam ne délai bi dafa dafa ndaw lool pour révision électorale bi. waaw xam nga nag mën na tuuti na ci wax délai bi euh, mënoo ngeen ko taawee mënoo ngeen ko wàññi. mais acteur politique nga. waaw acteur politique laa sama gis-gis mooy. Euh, euh, ñi nga xam ne ñoo ko yore. Mhm. ñoo ñoo ko saytu. Mhm. ñoom ñoo wax ne que la ndax xam nga tamit carte électeur mhm. ñi ko amul dañ leen ko war a defaral mhm. ñi nga xam ne dañu leen war a changer seen carte électeur dañ ko war a changer tey soo bàyyee délai bi mu gudd trop mhm. dana am dana am nu muy demee yenn carte yi du jot a génn ñu ne encore état ngi nii mbuxum na suñuy carte moo tax ma jàpp ne que dañu bëgg ci ay conditions yu leer ak délai yu wóor ndax xam nga bu ñu bindoo ba pare yemul foofu boo bindoo bañ ne tëj nañ ko après dañ koy publier Mm-hmm. am encore beneen délai boo xam ne waxaat na encore bi ñu ko publier ñi nga xam ne gis ñu ci seen bopp. Mm-hmm. wala am nañ ay erreur ñu mën a modifier. Mm-hmm. bu ñu paree loolu bind ba pare tëj. saytu ko. publier ko nga ñëw nga xool sa bos bu dee am na erreur wala bu dee nañ ko bindee du noonu wala bu dee euh, euh, nekkuloo ci nga mën a def sa revendication ñu jël en compte sa revendication génnewaat liste bi nga xam ne mooy liste définitive bi. Mhm. boobu la ñuy soog bi. Mhm. bu ñu paree impression bañ yi pare na ñu ne dañ ko war a léegi joxewaat distribution. Mhm. daal di ñëwaat encore distribution loolu yëpp war na am avant juróomi weer yi di ñëw. donc comprendre nga ne que su bëgg jël. période bi nga xamante ni mooy période bindukaay bi. bindu bi mu yàgg ca cappaandaw ga day amaat encore ay werante moo tax am na yaakaar ne que état du Sénégal ni mu ko doxalee nii la seytu na ko xool na ko ba xam ne ni mu ko bëggee def noonu la. Mhm. addu ci wàllu wér-gi-yaram muy Covid 19 bi lëmbee àdduna rawatina Sénégal gis nañu daanaka doo toog ayu bés te doo dégg ñu ci ñàkk seen bakkan lu toll ci ayu bés bi lu toll ci juróom-benn fukki ak. juróom-ñaari doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan ci ayu bés kepp muy 67 personnes Covid 19 bi tolluwaay ca Tiwaawoon Pël. waaw xam nga yàlla defoon na ci mbas bu njëkk bi. Mhm. di santaat suñu borom bu baax di ci gërëm population Tivaouane Peulh muy góor muy jigéen. Mhm. di gërëm bu baax acteur ñi nga xam ne ak actrice ñi nga xam ne ci mbirum santé la ñuy yëngu. ndax mhm. wax dëgg na yàlla ay jàmbaar rek laa am ci commune Tivaouane Peulh lu tax ma ne ay jàmbaar yàlla suturaaloon nañu ba ci euh, mbas bu njëkk bi ci commune Tivaouane Peulh ñooy commune bi ci mujjee am cas. ci district. bu Sangalkam. Mm-hmm. ñun ñoo ci mujjee am cas rax ci dolli euh, euh, ñoo ci gën a tuutile ay cas. Mm-hmm. loolu nag wax dëgg na yàlla euh, mayum suñu borom la waaye tamit taxawaay bi ci population bi am ak taxawaay bi ci commune bi am ndax suma ma lu toll ak juróom-ñaar fukki millions ak juróom yu soixante quinze millions dugaloon nañ ko ci mbas mi. Mm-hmm. lii dugal nañ ko ci mbirum produit yi nga xam ne moom la ñu soxla pour pour désinfecter. lii dugaloon nañ ko ci mbirum masque yi nga xam ne moom la ñu soxla pour que nit yi mën a euh, fagaru. Hmm. li dugal nañ ko tamit ci biir centre de santé yi nga xam ne soxla woon nañ ko ci ay jumtukaay pour que ñu mën a accueillir ñi nga xamante ne si dañoo feebar wala dañoo ñaaw njort ci yenn yëf yi. Hmm. waaye loolu yëpp teewul tamit dem nañ tamit jënd ceeb lu tolloog euh, euh, cent cinquante tonnes muy téeméeri tonnes ak juróom fukk séddale ko askan bi pour mën a woyafal seen nekki ndax jamono boo xam ngeen ne kenn demul kenn dikkul. Hmm. kon même lu weesu mbirum mbas bi doomu aadama yi soxla woon nañ loo xamante ne si moo leen di permettre ñu mën a. Euh, euh, dund dund daal. Mhm. loolu yëpp tamit commune bi amoon na ci taxawaay taxawaay bu askan bi rafetlu taxawaay boo xam ne wax dëgg neex yàlla euh, buñ ko mënoon tamit nii dañ koy defaat. Mhm. waaye tey dañu nekk ci diggante boo xam ne mbir mi dafa gën a metti mhm. nañ ci bàyyi xel. jàpp naa ne bu dee sensibilisation. tey xale bi am juróomi at rek. Mm-hmm. xam na lan mooy Covid. xam na mm-hmm. lan mooy Corona. Mm-hmm. tey ñëpp xam nañ ko. kon ni ñuy waxante dëgg. dëgg bi mooy lan. mooy na ñu xam ne corona bii. ñun ñoo ci mën a am taxawaay. ñun Sénégalais yi. ñun waa commune Tivaouane Peulh ñoo ci mën a am taxawaay pour corona bi. ba ñu dugg topp mais corona bi sonalul dara euh, boobu la localité maanaam cas yi fa. waa xam nga euh, du ñu du ñu du ñu du ñu du ñu lu ñu mën a wax rek mooy euh, euh, corona bi am na même commune Tivaouane Peulh ay cas ay cas positif ñi ngi fa. Mhm. ay famille sax yu positif ñi ngi fa. bu njëkk ci bu njëkk bi dañ daan def bu ñu gisee ko am Covid njabootam commune bi da ko daan jël ay moyens dem fekk njabootam jàppale njabootam diggante boobu ñu ko yóbbu en isolement. Mhm. mais xam nga léegi feebar bi cas yi bare na ba nga xam ne te xaw nañ ko miin ba xam nu muy nu muy doxee. donc léegi en général ce qui se passe mooy bu fekkante ne euh, euh, gars yi dem nañ ci am nañ ay ay ay ay symptômes dem ci district bi ba ñu confirmer symptômes yooyu. Mhm. dañuy dem ci CTE yi pour que ñu mën leen. Mhm. Euh, traiter foofu. mais jàpp naa ne que commune Tivaouane Peulh Niaga luñ ci mun ñu ngi koy def mais encore une fois de plus maa ngi ñaaxaat sama askan. Mhm. ni que mbas bi lenn rek moo ko mën a téye. mooy ñu takk suñu masque wàññi demalanteeg dikkalante yi. te it waa ji ndaje yi. Mhm. ndax ndaje yi ci la corona bi di faral di law. Mhm. monsieur le maire waxtu wi njatt nañu daanaka benn simili kepp moo si des ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw kon jërëjëf euh, sëñ bi maa ngi lay gërëm. Mhm. ci euh, euh, waxtaan bi invitation bi. ndax man nag maay maire boo xam ne bariwuma li muy dem ci plateau yi. ndax peut-être dama jàpp ne que lu ñuy def nañ ko def ci terrain bi rek. mais xam naa ne gis naa ne que ci la bokk. Mhm. ndax mooy permettre population bi di mën am ay leeral ci yenn point yi waaye nag mënu ma ñëw ba dem te remercier wu ma président Mbagnick bi nga xamante ne sii mhm. moom moo yore groupe bi. Mhm. lu tax ma ne mënu ma gërëm euh, ci Tivaouane ba mu jeex. moom dong laa fa mës a gis. ci mbirum tali yi. ku ñëw jël ñaqam. ne ma monsieur le maire. dañ lay jàppale ci ay yoon ci biir dëkk bi. dëgg la nag mooy yoon yu xonq yi ngay wax mhm. am na ci yoo xam ne président Mbagnick bi moo ñu ko defaral waaye mhm. dañ koy sant di ko gërëm mhm. ndax yoon yooyu tey tax na ba dem beeg dikk bi gën na woyof di ñaan yàlla bu ëllëgee yoon yu yoon yu xonk yooyu mën a nekk ay pavé wala mu mun nekk ay ay mu nekk ay yu ñuul jërëjëf euh, monsieur le maire mu nekkoon Momar soxna jóob di maire Tivaouane Peulh ñàgg euh, doon euh, tontu laaju ki fare si kàddu gi sax di Mass Thiam ci xarale gi Adama Diallo nekkoon seen émission gox bi di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf